lu ëpp fukk ak juróomi milliards la ñu jagleel mbooloom commune yi nekk ci ndakaaru mu nekk projet bu ñel lépp luy tali ak yoon ngir rekk ñoŋal nekkinu askan wi. donc euh, luñ ci jublu daal mooy ci gàttal euh, góorgóorlu ba yenn gox yu nga xam ne nii euh, dañu xaw a enclavé ñu mën leen désenclavé ñu mën a créer ay yeneen. Euh, tali yi nga xam ne nii day nekk des euh, des routes de circulation mu mën a améliorer flui fluidité wu circulation bi euh, yenn tali yi dañ leen di leen di tabax entièrement yeneen yeneen dañ leen di dañ leen di réhabiliter dañ leen di defaraat. ci biir bi la visite kii di Barthélémy Diaz maire de Dakar mu ngi avertir concessionnaire yi nga xamante ni amuñu mbëbët defaraat yoon yi ginnaaw bu ñu paree seen installation. donc. Euh... lu may ñaawlu mooy surtout société yu nekk ci biir dëkk bi di euh, liggéey di intervenir ci réseau routier bi moo xam na euh, seen dañuy liggéey ci mbiru ndox wala ci mbiru courant wala ci mbiru yi euh, di toj tali yi di dajji tali yi dugal seen réseau te bañ bañ liggéeyaat tali bi foofu dañuy dut baaraam autorité yi particulièrement AGEROUTE wax la ñu xaat seen taxawaay parce que ku bëgg tabax réew daanaka day ànd ak discipline ànd tamit ak respecter la loi euh, képp ku nar a laal voirie moo xam voirie classée wala bépp voirie bu mu ti doon da nga nar a déposer caution ci AGEROUTE donc ñu ngi ñaaxaat AGEROUTE nañu xool seen taxawaay di interpeller tamit autorité déconcentrée yi moo xam sous-préfet yi moo xam préfet yi moo xam gouverneur yi parce que lu ñuy def nii mutul continuer mu bëggoon tamit euh, wax ji leer à partir de maintenant képp ku fi toj tali bi Dakar ñu ngi lay ñaax ci yar ak teggin nga dat ngir liggéeyaat tali bu nga toj soo ko defulee tamit lépp lu nga fay liggéey dinañ ko déterré sànni ko parce que fekk nit ki ak alalam yàq alalam euh, dugal sa réseau dem sa yoon loolu ci gàttal ab yebel la donc ma bëggoon wax jooju leer képp kuy intervenir à partir de maintenant ci réseau Dakar maa ma maa maa ngi koy waxaat di ko biiralaat bu baax a baax ku fi toj tali na ko defaraat parce que moom la yoon santaane euh, dugal sa réseau bàyyi ko noonu dem sa yoon day causer ay désagréments day euh, day indi surtout pendant la période hivernale day créer ay désagréments yu yu xaw a jéggi dayoo donc euh, di jógalu nag askan wi bu baax a baax par rapport ak désagréments yi ñëw am si ci ñetti at yu ñëw mais lu ko waral rek mooy jéem a góorgóorlu ba Dakar euh, amaat beneen melokaan donc kii dafa bokk ci projet yu mag yu ñu entamé am na tamit projet éclairage public bi am na projet wu jardin euh, terrain synthétique yi am na tamit projet wu 57 jardins publics yi donc euh, entre autres projet yooyu daal mooy projet yu nga xam ne ni fu mu nekk nii daal ñu ngi def suñu kéem kattan ba man ko euh, démarrer man ko ag li ci jàmm ak salaam. waaw coût bi daanaka ñetti at yi Dakar dina dépenser lu tolu ci 15 milliards 300 millions. te budget boobu yëpp c'est un budget mobilisé exclusivement par la ville de Dakar. Mat Diop maire bu Grand Yoff mu ngi rafetlu bi les projets di ñaax askanam ci wàllum yorin. sant d'abord maire Dakar parce que bu doon maire Dakar ñun mënuñu def lii on n'a pas les moyens amuñu moyens def ko mais maire Dakar moo dellu si gafaam pour dimbale commune Grand Yoff am nañu 15 kilomètres ñu war def route et puis pour préciser dama ko fàtt si français bi mais du rek les nouvelles projet bi ça concerne l'université et Grand Yoff traditionnel mais comme fee daa problème assainissement pour le moment ñu préféré commencer ko ci université yi en attendant ñu régler problème assainissement bi maintenant si loolu deux deux deux kilomètres lañu ñu commencé mu des quinze kilomètres di waraat sant ak gërëm rek la parce que koo defal loo mënut da nga koy sant gërëm ko te lu ñuy defal nii mënuñu monsieur le maire au nom de tout la place de Grand Yoff merci beaucoup parce que fu may jeex la tali bii nii tali boo xam ñëpp fiy jaar te ñun Grand Yoff ñooy choisir yan tali la ñu war a ñu warul commencé mhm. bu ko commencé bu ko choisir xam ne impact bi ñoo war a nekk responsable xam ne li ñuy defar du pour ñun pour ñoom la ñu mun ko sauvegarder defar ko ba nga xam ne bu ëllëgee ku fi jaar doo wax waa Grand Yoff jëruñ defal dara ci commune de Grand Yoff travaux yi ñu ngi avancé bu baax fukk ak juróom-ñaari kilomètres ñoo ci des bu ñu sukkandikoo ci Barthélémy Diaz fii ci atum 2026 commune de Dakar yépp dinañ profiter ci bile projet